doomu aadama nee ko defal loo xam ne dina na sunu boroom dana ko defal lool moom doomu aadama bi dana réere na dara jaja tollu mooy leen yàlla defal nee lool nag moom la leen yàlla defal magasin yoo xam ne dafa fees dell ak i lem. nee na magasin yoo xam ni dafa fees dell ak i lem. borom nekk fa njabootam. nee na borom nekk ci biir magasin yooyu ak njabootam. ba yàlla yàlla nee na ba yàgg yàlla jële ko ca magasin ba nekkatu fa. la magasin bi rëy rëy ay nekk yëpp ña fa nekkoon ñoo ko moom. nee na la magasin ba di rëy rëpp di rëy rëy lépp ak la fa ne ña fa nekkoon ñoo ko moom. arab yi dañuy waxoon alxayru fi maxtira laka yiw mooy li tànnal. nee na yi dañuy léebu naan yiw de mooy liñ la tànnal. rawatina nag. nee rawatina nag. li la yàlla tànnal. nee li la nga xam ni yàlla moo la ko tànnal. yéen ngi wutu góor goo xam ni. nee na yéen a ngi wóotu wuutu góor goo xam ni. chance rek moo moo moo bu moo tax ngeen am ko. nee na chance bu jóge ci yàlla rek moo tax ngeen am góor googu. Cheikh Alioune Ba mi àndoon Seydi Hadji Malick. nee na Seydi Alioune Ba mi nga xam ni moo àndoon ak Cheikh Seydi Hadji Malick. Cheikh Hadji Malick yàllay kese. nee na Seydi Hadji Malick di koo xam ni yàllay kese la. lu dul yàlla dégg ko. nee lu dul yàlla Seydi Hadji Malick dégg ko. lu dul yàlla gisu ko. lu Malick gisu ko. dul yàlla wutu ko. nee na lu dul yàlla Seydi Hadj Malick sàkk wu ko wutu ko. lu dul yàlla it amu ko. nee na lu dul yàlla it Seydi Hadj Malick amu ko. yàlla may taalibe bi mu roy ko mu ko. xawlan wa fi'lan nee yàlla may nag Seydi Alioune Ba di taalibeem roy sëriñam boobu di Seydi Hadj Malick ci wax ak ci jëf coonoom yëpp mu ngi am bi ak tarixa bi nee na coono Seydi Alioune Ba yëpp mooy sariya bi rek ak tarixa bi kenn mos gis mu yëngu ci àdduna loo xam ne lu mu lay wut la nee na kenn mosut gis Seydi Alioune Ba wala nga dégg ko muy yëngu-yëngu ci àdduna loo xam ne lu muy wut la ah euh, te euh, yi nag dañuy wax ni nee te dañuy faral di wax ni Eh, ku toll ne Seydi Ba mii. ku toll ne sëñ Seydi Ba mii. diir bi mu am ci ci àdduna. nee diir at yi nga xam ne dund na ko fii ci àdduna. ci àdduna amu fi dara. te àdduna sàkk wu fi wutu fi amu fi dara. ba muy dem. nee ba muy dem moom Seydi Alioune. Eh, eh, dogalu borom bi tabaaraka wa moo ko moo ko waral. nee dogalu borom bi. tabaaraka wa taala moo ko waral. waaye bu fekkoon sañoon dafay nekk rek. di jaamu yàlla jaamu yàlla rek. nee bu fekkoon nag yàlla bàyyi na ko fi mu continuer di fi nekk. du ci changer dara ci jaamu yàlla kese ci lay nekk. ba mu fi jógee. nee na ba mu fi jógee nag. mu am ay weer. mu am ay weer. mu am lu xew ci ci ci genn kër. mu am lu xew fii ci genn kër. nu dem fo nee na ñu dem fa. génn góor gu baax wax loo xam ne yàlla ko wax loo. nee génn góor gu baax wax ci moom seede boo xam ne yàlla moo ko wax loo. te boobu jóge na fi am ba am nee na te boobu kër Seydou Alioune jóge na ci këram gi dem ci yàlla ba am ay weer. muy daal Seydou Alioune Ba. nee na góor gëni Seydou Alioune Ba. ku xam ne newuloo fi nekku fi. ku xam ne nekkutu fi. dangay dem ba ci néegam fekkoo ko fa. da ngay dem xanaa ba ci néegam rek fekkoo ko fa. te booba ak léegi mu ko waxee ne mat na ñeent fukki at. waaye te booba ba mu ko waxee léegi ëpp na ñeent fukki at. te yàlla defal su si daan mel woowee ba ba seen taxawaay bi toppeeku. nee na yàlla defal nag sutura sëñ Alioune Ba melokaanam woowee mu fi nekkoon ci yàlla ba bi mu fi jógee ba léegi ba tey jii. melokaan woowu soppiku. te téere yi nee nañu alsinatul xalqi mu aklamul xaq. nee téere yi nag dañuy. wax loo dégg ñu di ko wax. nee na wax nañ ni loo dégg nit ñi di ko wax. loola loola loola xalima xalima yàlla di digee moo ko bind. nee na xalima yi yàlla di binde moo ko moo ko bind. ndax. nee na ndax. boobu ba léegi si benn melo la. nee na boobu ba léegi benn melo kese. Sénégal yëpp. nee na Sénégal yëpp. ñu ngi sant. ñi ngi sant ñi àndoon ak sëñ Alioune Ba ñi àndoon ak Ba ci barabam bii ci barabam bi ci liggéeyam bi ci liggéeyam bi kon nag nee na kon lépp lu Seydi am da ngeen ca am lépp lu Seydi Alioune Ba am xam leen ni da ngeen ca am lu mu bàyyi ci yiw ñeel na leen nee na lu mu bàyyi ci loolu ñeel na leen loolu yàlla defal nañu ko nee na loolu na ngeen xam ni yàlla defal na leen Sénégal gépp ñu ngi sant mbooloom sëñ Alioune Ba te yéen rek Sénégal gépp ñu ngi sant mbooloom sëñ Alioune Ba mi euh, euh, euh, ak it ngeen ni ngeen remplacé seen baay yi ak seen wayjur yi. nee na ak itam nii nga xam ne noonu ngeen remplacé seen baay yaak seen maam yaak wayjur yi loolu it ci la bokk. nee na loolu itam ci la bokk. ndax bu dul woon loolu li ñu koy bëgg bëgg du mën a am. nee na bu dul woon ak loolu. nee na kon li ñu koy bëgg bëgg loolu du mën a am. kon nag yàlla yàlla wuutu si Alioune Faye leen. nee na kon daal yàlla na yàlla wuutu sëñ Alioune Faye leen. yàlla yàlla jëmbat ci ci ci njaboot gi yiw ak ak ak barke. nee na njabootam gi yëpp nag yàlla ci yàlla jëmbat yiw ak barke. te su ma nee rek njabootam mooy mooy mooy yéen ñëpp rek. bu waxee njabootam waxul ñi sant baak ngiraan ak ñooñu rek kontaan kontaan nañ de waaye suñu waajur yi ngeen remplacé ci place bi ngeen daan fekk si Alioune Ba loolu ci la bokk. nee na kontaan nañu waaye yéen itam waajur ya ngeen remplacé ci place suñu Alioune Ba bii ñoo gën a kontaan. kon ñu ñaan ñu tàllal loxo yi ñaan yàlla. ñëpp ñu bokk tàllal loxo yi def ñaan yàlla nañu ko fekke waat. ay déglu fatiha ayatul ixlaas kenn ku nekk na nga jàng fatiha ayatul kursi lixlaas falaq ak naas salaatul fatihi yal na yàlla déwén suñ si déwén déwén kenn bañ ko manqué nee na déwén yàlla bu kenn manqué yàlla na sama njaboot gi def ci ñoom barke. yàlla na yàlla sàmm njaboot gi te def ci ñoom barke. musiba yi ak bàyyi wul yàlla ko yàlla sànni. sànni ko ca àll ba yi wëndeelu balaa yi feebar yi yëpp yàlla na ko yàlla rocc ci sànni ko ca àll ba. ci barke weer wi ci barke bis bi. nee na ci barke weer wi ci barke bis bi. ak seen bés ak seen barke jëf yi. ak seen barke jëf yi ngeen jëf. tabaarakallah. Faatiha ayatul kursi lixlaas falax ak naasi salaatul faatiha. Hmm. اللهم لا تجعل خانا من هذا اللهم لا تجعل خانا اللهم لا تجعل خانا ما من تبارك الله ما في ما في